gars yi salaamaaleykum ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp leen siyaar fas yéene waxtaan ci lu gàtt rek ak yéen mooy li ngeen gis ci internet bi euh, weer gis nañ ni Macky Sall dafa jël police am ak ñeneen ak ñeneen ko def teg ko suñu ndodd ku ñu dugg ñu nga fa lu ñuy def ñu ngi ñuy waxuma laa nag li jëm ci téléphone yi ñu noonu. li xew tey dafa firndeel loolu ndax ñun dañoo jugee suñu conférence de presse dañu doon defee ci siège du PRP bu Déthié Fall bi génnee noonu gis benn waay boo xam ne mu ngi toog ci kaw suuf la mel ni kuy waxtaan ak yor téléphone am di ñu filmé discrètement gis ko ñu interpellé ko laaj ko mu ne moom ab euh, brigade de recherche la nekk ñu ne ko ana sa carte professionnelle euh, mu ne. di ko génne wala yoru ko ñu xool ci ay bagages yi ñu doon gis ñu ci dara ñu jël téléphone am xool gis ni dëgg effectivement mu ngi doon filmé li ñu doon def li ñu génne ci seen lu ñu egsi foofu ca lañu ñu jóg may leen comme nee na euh, brigade de recherche sa bokk jarul dóor jarul kuloo nañ ko yóbbu gendarmerie Foire ca lañ ko yóbbu gendarmerie Foire ñu demee foofu lay dogal leeral ne moom police njëppal la bokk daal di génne carte professionnelle am daal koy wane. ngeen gis ni ci ni mu soloo kenn mënul xam ni policier la ndax dafa civilisé euh, ni ñu jëflanteeg moom yéen ñëpp gis ngeen ko ci vidéo ni mu doon wax ak waxu policier donc ñu jàpp ni loolu lu doy waar la lii téléphone la mi ngi nii ñu war leen image yi daanaka bi ñu génnee euh, kër Déthié Fall ba ñuy egsi ci moom mu ngay filmer di ñu xool te lii du tey du guleet lii nag Euh, moo tax ñu yóbbu ko ca police ba fi mu ne nii tembe auto police ngi nii gaare sama buntu kër nee nañu téléphone bi la ñu jël si dinaa leen ko yéen yéen ñëpp ngeen gisandoo ko su dee nag defuñu euh, buriwuñu ndax bi ñu mujjee am loolu problème boobu ci ñi ñu doon surveiller fii dañuy ah, dégg naa waa police dem nañu xam naa dañoo gis live bi moo tax ñu gaawantu taal seen oto dem waaye ñu ngi woon fii sama buntu kër téléphone bi nag saa ñu ko bëggee jël si mun nañ ko ñëw jël si loolu amul benn problème euh, lii nag du guléet may wax ni kër gi jàkkaarloog sama kër luyel nañ ko benn seen benn waay boo xam ne ci renseignement généraux yi la nekk lu ma at ak genn wàll mu dëkk fii ñi daan seetlu kër googu bi événement yi amee ci mois de février mooy kër bu policier yi yéegoon yor seeni fetal di tiire mu jëm sama kër kër googu ñu ngi ko luyoon benn renseignement généraux boo xam ne du ma wax fii turam ndax am na lu may sàmm lu ma koy sàmmal mu dëkk lu ma at ak genn wàll di ma surveiller boobu man xamuñu ci dara keroog ci mois de mars bu dëkk bi sàngee ba ñu yëg ko xale yi dañuy dem taal char de combat seen véhicule blindé police yi ñëw gaare fii ci buntu këram bi ñu xëy la lendemain mais lañu gaare camion moom ak njabootam yépp ñëwal leen seen bagage yi dem ngeen fàttaliku ci gannaaw bu yàggul trop tamit li fi xewoon mooy seen oto boobu nga xam ne ñu ko gaaroon ci sa buntu kër ay matériel électronique nekk ci ñuy espionné ñi xew ci biir kër gi ne ñi nee nañ ku demoon gannaaw kër sax seen oto boobu mënoon na ko gis loolu nag musiba la ba ñoom accrochage ak sama sécurité ba tey jii ñoo ngi yónnee walla di essayé xool fu ñuy jaar pour lañ fi bàyyi woon muy ordinateur bi nga xam bi ñu amee accrochage ak sama sécurité moom lañ fi ba ñu ne ordinateur boobu ba léegi dañ ko bëgg jël may wax waa police nag ni su leen neexee muy téléphone bi muy ordinateur boobu mën nañ ñëw jël si ko mën nañ ñëw jël si ko booguma Sénégal yi xam li na ci biir yépp ndax euh, am na loo xam ne ci suñu euh, kaaraange la bokk waaye may fàttali waa police national ni ñoom dañ fay nekk pour Sénégalais yépp dañ fay nekk pour kaaraange nit ñépp rôle bi ñu leen di naam nañu ci dara sax waaye du bu rafet sàcc si bëri na ci réew mi samba boy yi bëri na ci réew mi problème sécurité am na ci réew mi ñu jël seen dispositif boobu yépp ne ñuy surveiller Ousmane Sonko la lii am tey ñetti weer ci gannaaw ñu demoon nañu ba am firndil bés bu ne fële sama bokk koñ bi la ñuy gaare seen ñaari scooter bokkul nag ak ñi nga xam ne dañ leen di teg ci koñ bi ñu mel nii ay ñii naan mel ni ay vigile ñii mel ni ay ay ay euh, euh, employé ci ay kër am na benn ministre bu ne fii ñoo dëkkandoo këram la ñuy añee bis bu ne ñu teg leen foofu saa su ma génnee fu ma munti dugg ci ndakaaru ñu ngi topp ñu ngi may topp ak seeni moto ñetti weer ba léegi biñ ko biñ ko seetloog léegi amaana gën naa sori loolu ñetti weer ba léegi def nañu suñu dispositif ñun ba ñoom seen bopp ñu ngi def filature ñu ñu def leen contre filature ba tey yor naa fi ay film yoo xam ne filme nañ leen ñu topp ñu ñi ma samay nit topp leen fu ma taxaw ñu taxaw fa fu ma dem ñu dem fa du benn du ñaar du ñett filmé nañ fii kon damay wax Macky Sall na noppal boppam lii lépp jaru ko moom ak as as looloom di de mu teg foofu muy ministre de l'intérieur dañu noppal seen bopp ñun du ñu ay préparé wuñu coup d'état du ñu ay terroriste yéene ñu réew mi lu bon ay acteurs politique yi loo xam ne dañoo am suñu gis-gis bu safaanoog gis-gisam am suñu bëgg-bëgg ci réew mi bu safaanoog bëgg-bëggam te loolu mooy démocratie police ak gendarmerie ak armée ngir yàlla c'est des institutions wala c'est pas des institutions waaye c'est des organes yoo xam ne c'est sacré dans un pays nañ leen génn ci politique bi dem naa ba sama waa njaboot ñëpp am psychose ñëpp a ragal si waa kër gi du xale yi du jigéen ñëpp dañoo ragal parce que jàpp nañ ne bu ñu génnee fii am na ñuy topp seen gannaaw tey su ma teeluloon intervenir ci ñu jàpp tey mënoon nañ ko sacrifier ndax amuñu benn firnde ni kii police la bokk amuñu ko te ñaar ñi ñëw saa su ne am na ci kenn koo xam ne sama waa sécurité dem nañ ba gis ni fu mu nekk mu ngi yor am gànnaay bi mu yor ci suufu chemise kon kooku ñun kan moo ñu ne policier wala gendarmerie wala renseignement général wala est-ce que ay nit yi ñu yónni la pour ñu assassiner Ousmane Sonko kon tey su ma gaaw leen intervenir ñii mënoon nañu dal ci kawam te bu boobaa heure bi musiba am na kon nañu bàyyi yii ñuy foowee yii c'est sacré te du kenn nag ku dul Macky Sall jël lii lépp naan yaa ngi surveiller ay adversaire politique te ñi amoon yeneen farat farata ñu war a dox lii rafetul ci réew mi mbir maa ngi nii bi ñu xam naa ni bi ñu déggee ñu ne Ousmane Sonko ngi def live wala tudd na téléphone bi la ñu taal seen oto léegi dem waaye sànq ba léegi ñu ngi fii taxaw nee nañu lii la jël si bu ñu dellu see nag téléphone baa ngi nii ñu delloo leen ko ordinateur ba sax mi ngi fi saa suñu bëggee ñu ñëw ñu delloo leen ko parce que la fa nekk ci ay renseignement jàpp naa ni la ca bëri suñu sécurité nationale la awma benn intérêt téye ko waaye dama leen bëggoon woon ni mbir mi nii du lii mooy lu ñuy xaar ci police ak gendarmerie nañu bàyyi opposition bi ñuy surveiller di ko euh, xoqatal di essayer def ay rapport suba ngoon guddeeg bëccëg ci ñoom nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs que Macky ci réew mi kon lii na fi dakk loolu daal mooy li ñu bëggoon a leeral ci lu gàtt di leen gërëm di leen sant di leen jaajëfal asalaamaaleykum